مصطفى إذ جاء يمتى وصليا يا إلهي وجزيا أبدا عنا محمدا لا المختار في الخدم مصطفى وصليا wa بعيدا مصطفى من كل وصف حميد هذا أفعل تفضيل رجاء البرايا يوم مذل مصطفى من كل وصف حميد هذا أفعل بالمصطفى دين الرجاء البراء يا إمام شيخ الحاج مالك وكان أشجاع أسخى الناس أحسنهم خلقا وخلقا وخير الحسب والأمم من كل وصف حميد حميد رسول العين رجاء البرايا يوم مسدعا موضوعي وأليان الناس قالوا لم يكن أبدا بين الصحابة زامد من القدم موضوعي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 asalaamualeykum aleykum rahmatullahi wa barakaatuhu bu ngeen déggee loolu nga xam ne moo jub léegi te muy tagg wu jëm ci sallallahu alayhi wa sallam xam ne am na xew-xew boo xam ne xew na te kenn moomu ko lislaama ko moom muy tàkkusaanu sayiduna muhammad ñu ko daan def at mu jot ren la ci fukkeeloo at inchaa allahu taala kon dañu bëgg a yëkkati kàddu gi jox ko alhaji yahya joob mu waxtaan ak mbooloo aousubillahi min alseytaan irajim mbokki julli di asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa Cheikh Niang wax na ko léegi euh, jigéen ji nga xam ne dafa jàmbaare am kilifa borom këram mooy Alaaji Samba ki ñuy waxal nii nag mooy Adja Astou Touré mooy faral di def takkusaan Seydina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fii ci Garzon Berger wetu pharmacie bi ñu ngi ci woo jullit yëpp géejawaay jigéen ñi mag ñi góor ñi ñëpp xam ne takkusaan bii nag Serif Ibrahima Aïdara Tidiane koy waxtaane ci teewaayu euh, Serigne Issa Touré ak i sopp na bi ñu ngi woo ñëpp ñu woo jullit ñëpp fa tabarakallahu salaamaaleykum wa rahmatullah ah jërëjëf xaaji Yaxya kon ñu yëkkati kàddu gi jox ko oustaz Ousseynou oustaz Ousseynou Fall nag tabarakallahu ci daayira bi la bokk di boroom xam-xam di waxtaan ci daayira bi kon oustaz Ousseynou bismillah kàddu gaay waaw asalaamaaleykum mbokk yi euh, xam naa rek euh, comme ni ko Cheikh Ahmed Tidiane Niang waxe dañuy jublu rek ci programme bi ni mu tëddee ndax bii mooy euh, dixième édition soxna Astou Touré di ko def incha allah euh, programme bi nag ñi mu tëddee bu ñu xëyee dinañ jàng alquran euh, ren nag mu jagleel ko ñi nga xamante ni ay wëllëreem lan te ñu génne àdduna muy Kumba Mbay Sekk ak Astu Saaxo ak Mamadou Diop ak Koddu Saane incha allah kaamil bi ñu fas yéene jàng ci suba bi ñii lañ koy jagleel ak bépp jullit di nag daara sëriñ Fallou Hann ak daara imam euh, Malick Siñaan ak daara Bun Omar incha allah ñoom lañ bëgg ñu taxawee kaamil bi ak bépp jullit bu fi nekk bu ñu añee ba noppi nag incha allah mise en place bi mi ngi nekk euh, trois heures et demie incha allah bëgg na ñëpp ñëw ci tant bi ndax ñu teel a tàmbali incha allah conférencier bi nag mi ngi nekk euh, Cherif Ibrahima Aydara Tidjani bu amoo kat mais première partie bi. incha allah kii moo koy def oustaz euh, Ale Ndiaye mooy modérateur bi thème bi mi ngi nekk ci dundu yonent bi alayhi salaatu wa salaam incha allah mooy thème bi nga xamante ni dina am solo lool at mu ne euh, Chérif Ibrahima Aïdara di ko traité incha allah bu ko defee lii mooy programme bi ñu ciy woo ñëpp ñëpp ñëpp képp koo xamante ni rek yaa ngi wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ñi ngi la ci woo rawatina nag daayira sopp nabi bi nga xamante ni moo nekk ci Sénégal seen responsable moral di Serigne Issa Touré ñu ngi leen ci woo ñoom ñëpp ak daayira Moustarchidine bi nga xamante ni moo fi nekk ci koñ bi ak euh, yi ko wër ak daayira Xayrul wal Minnati ak fondation Maam Fawade Wele ak daayira sopp nabi bu Mbodd 3 ak fédération sopp nabi du Sénégal ak daayira sopp dabaax ak daayiratu Moustarchidine wal Moustarchidaat ak daayira Moutahabina Fillah ak association de jaxante de Dakar ak daayira xayruwal Minna bu euh, Aynuman 3 ak daayira soppey Serigne Babacar Sy bu Cubaleel ak daayira Asegna ak daayira bëgg nekk taalibe cheikh ak bépp daayira boo xamante ni yaa ngi ci gox bi rek ñu ngi la ci woo incha allah di leen wax euh, euh, samedi la le 29 incha allah fii ci croisement Sam incha allah ñu ngi leen ci woo yéen ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullah. ah tabaarakallahu Serigne Ousseynou jërëjëf dégg nañu kàddu yi 29 février la incha allah taala ci gàttal 29 février 2020 incha allahu yàlla nañ ci yàlla yóbboog jàmm daayira bi nga xam ne nag ñoom ñoo def tàkkusaanu Seyduna Muhammad bi woo ci daayira yi fédération yi association yi groupe bi boole ci ñëpp képp kuy wax ashhadu an laa ilaha illallah nga am cofeel ci Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi lay woo sopp na bi biirum réew ak bitim réew ak daayre yépp ñu ngi leen di woo waaye xam nga daayre la te présidente ngi ni toog di xadijatu nga xam ne xadijatu mooy awa sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam looloo tax kon suñu daayira bi daal na xel ndax xadijatu mooy présidente bi kon nag ñu yëkkate ak kàddu gi jox ko suñu présidente Adja Xadijatu Njaay Xadijatu Njaay Adja bismillah kàddu gaa ngi auzu billaahi mina rajiim bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin ñu ngi sant yàlla di julli si yonent bu tedd ba sa Medina di sant sunu sëriñ responsable moral sëriñ Issa Touré di def appel sunu dixième édition conférence Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa di woo képp kuy taalu be sopp nabi nekk ci Sénégal ñu ngi lay woo surtout nag daayira yëpp yëpp fàttewuñu kenn di woote 4 heures 30 pile mise en place na ñëpp teew ci surtout sama mbokk jigéen ñi na ngeen teew taxawu takku bu neexee yàlla ñu ngi wax ne daayira bi présidente man la mais soxna Astou Touré jaxa bi mooy fondation bi muy dixième édition at mu ne dañuy ñaan yàlla yal na ko yàlla yokk ba ñu gën koo fekkee gën koo tal waaw niñ ko fekkee ren yal nañ ko fekkee déwén mu dàqati ren bu na nee naaw yal na mel di déwén soxna Astou ñu ngi lay gërëm di la sant ndax conférence bi ba nga ko sosee ba léegi toujours sa président sa membre sur place si xàjjale woo seddale kon nag dañuy ñaan si yàlla di ñaan si yonante bi daayira bi yàlla na fi sax ak daayira si géejawaay yëpp ñu ngi leen di woo sanu doom yi sanu rakk yi xarit ñëpp na ñëpp teew yàlla nañ ko yeggaleeg sanu sago si barke Seydina Muhammad rasulullah sallallahu taala merci ah, mbokk yi dégg ngeen soxna Xadijatu présidente kàddu yooyu mu yëkkati julli ci sallallahu alayhi wa sallam di soxna su jàmbaare bokk koogu waa daayira sopp na bi tabaarakallaahu kon ñoo ngi bëgg yëkkati kàddu yi di ko jox Adja Astou Touré ba la romboy fu mu jëm bul ko laaj ci géewu yonent bi gàmmu yaag conférence yaag daayira yaag association yaag ak dimbali jaami yàlla yi dimbalante xamante jàppalante loolu lay dox suba moom lay dox ngoon ni sëñ Yaxya wax nag yàlla dogal lii biñ kon a cuq di def tàkkusaan bi mu ne fu ne dañ fay wuy ji di fa wuy jël géewu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon nag fii nga xam ne fi la ñu dëkk danañ fi def benn tàkkusaan boo xam ne daan ko bëggee bégal ci suñu dëkkandoo bégal ci suñu soppe Adja Astou Diakhabe moom la ñuy bëgg a jox kàddu incha allah ñun ñëpp ñu dégg ko Adja Astou bismillah bisimilahi rahmaani rahim ah jataay bi de wax dëgg yàlla bu ngeen ko gisee mooy jataayu Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daayira Seydouna Mohamed moo toog fii di yëkkale suñu dixième édition wu tàkkusaanu Seydouna Mohamed ah sëñ Issa Touré nag moo nekk ci bopp bi ndax mooy suñu wasila ci biir tarixa bi moo ñu jox suñu tarixa a ah, ñi ngi koy woo bàyyiwuñu waa kel bàyyiwuñu kenn a ah, di gërëm nag sama présidente macha allah ndax benn lam du yëngu présidente sa daayira bi macha allah ñépp ñi ngi ànd nekk benn di fo di ree bu ak bés bi ñëwee ñooy jëndal seen bopp ay yére ñooy àndi ndimbal ba duma xalaat lenn loo xam ne lii ñi ngi koy war a def ci biir tàkkusaan bi kon maa ngi leen di jaajëfal yéen ñépp ah soxna Fat si nag a ah, bu maam Abdou Aziz moom i tamit wax dëgg yàlla ci jataay bi la bokk ndax moom it tamit wax dëgg yàlla mi ngi nii ñu bind fii ah, sëñ Moulay sii bu Tiwaawoon tamit ñi ngi koy woo di woo waa Tiwaawoon yépp di woo soxna Asi Sy bint maam As bu Seydi Jamil ñi ngi koy woo ndax mësu see manqué saa su ne bu bés bi taxawee moom bàyyi na itteem yépp mi ngi nekk ci bés bi ba bés bi jàll ñi woo soxna umm bu soxna asiyatu si bu fondation Maam Fawad Wele bi nga xam ne ñun ak yaayam ñoo nekkoon ci fondation bi yàlla def li gën mu jiitu ji àjjana léegi nag ñi ngi koy woo soxna umm ak daayira bi yépp bàyyiwuñu kenn ñi ngi tam am suñuy invité d'honneur ndaxte sama présidente wax na ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoom ñooy daayira invité yi mais am nañu ay invité d'honneur ku mel ni oustaz Masila Kane dix éditions yëpp macha allah mi ngi fi yal na yàlla def ñu yàgg koo fekkee ñi ngi woo tamit imam Moussa Gueye bu euh, bi nga xam ne moom moo ñu defal daara alxuraan soxna Umu Kalsum si dëkkandoo jàmm ca gën ñuy jàng alxuraan ba wax dëgg yàlla suñu biir ñu bari far nañu ijji fir fer nañu ijja ba ñi ngi wut saar yu bari di ko mokkal kon loolu tamit sant yàlla la ñi ngi woo imam Moussa ci bés bi ñi ngi woo honorable député Mika ndax Mika tam dafa ñëw fekk ñu ñuy jàng suñu arxuraan mu ne oustaz Malick léegi kat man may fay arxuraan bi ni ñu daan cotiser yépp léegi cotiser tuñu daanaka oustaz Malick euh, moom moo ko tëbbal saleeram ci daa daayira bi daara ji kon loolu si sant yàlla la bokk ñi ngi woo tamit sëñ Cheikhouna Mbacke sëñ Cheikhouna Mbacke mi nga xam ne ñoom moom ak rakkam Omar sëñ naa Omar Mbacke ñoom ñoo yor daayira maam borom Touba bi nekk ci koñ bi woo nañ leen ñi ngi woo tamit euh, Yaxya Diop mi wax sànq ndax Yaxya mi kat ah daanaka bi ñuy commencé ba tey macha allah ci jàppale bi. ba moo ñu booleeg Chérif Ibrahima Aydara at yi ñi ngi woo it Badou mi nga xam ne moo jiitee daayira koñ bi di woo suñu daayra sopp na bi jeune ñi nga xam ne ñi ngi ci quartier bi di dundal tarixa Cheikh Ahmad Tijane kontaan nañu trop ci ñoom macha allah ah ñi ngi woo nag sama benn xarit boo xam ne wax dëgg yàlla ñoo bokk fu ñuy yëngoo muy ay Aysatu Ndaama Kulibali ñu koy wax madame Ba moom it ñi ngi koy woo ñi ngi woo ajaa ay Kassé bu Maam Fada Wade Wele bi nga xam ne moo nekk ca aéroport ba ñi ngi woo ah ki nga xam ne moo jiitee waa bëgg nekk taalibe Cheikh moom moo ko jiitee ñi ngi koy woo Aminata tëndooy ak ñi mu àndal ñépp woon nañ la ci bés bi ndax bëgg a nekk taalibe Cheikh yal nañu ko yàlla def ci barke Seydouna Mohamed ndaxte tamit wax dëgg yàlla yooyu yëpp ay kuréel la di kontaan trop nag bés bi ki koy taxawee mooy Chérif Ibrahima ay dara Aïdara yi at bu ne moo koy taxawee rafetal ko lool ba mu rafet waxtaan fi waxtaanu diine waxtaanu Seyduna Mohamed mi nga xam ne moom rek la ñuy nooyee ah Cheikh Ahmed Tidiane Niang moom moo yor animation bi at bu ne macha allah di fi woyal Seyduna Mohamed. ak li mu àndal ba si Seyduna Cheikh ñëw ci Alaaji Malick ak njobootam ah ñi ngi koy sant di ko gërëm di wax ne ah foofu la ñuy daaneele kàddu di wax yàlla nañ yàlla may ñu fekkee ba cent ans lu ëpp cent ans buñ fi jógee yàlla na suñuy doom yeggali tàkkusaanu Seyduna Mohamed ah ñun de Seyduna Mohamed rek lañuy ñuy nooyee di wax allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa salim jërë ngeen jëf jazakumullah ana ah, xayra mbokk yi dëgg ngeen Adja Astou li mu wax yal nañ ci yàlla yóbbu jàmm le 29 février la incha allahu taala 2020 le 29 février yàlla bu kenn am ngànt yàlla ñëpp ñëw ci jàmm jëf ji nag jëf ji ñu koy jëf yëpp dañ ci am ndigal ndigal laa ngi bàyyi ko ci xalifa général de Tidiane Serigne Babacar Sy Mansour Euh, ak tabaarakallaahu rakkam yu baax ya Pape Malick di porte parole kër Cheikh Al Hadj Malick Serigne Maodo si yàlla na ko fi yàlla yàggal lépp nag ñi di ko def nag ci ndigal loo xam ne Serigne Issa Touré ma nga jëloo ndigal la ca Cheikh Al Hadj Aziz mu yar ko jox ko ndigal mu doxal loolu mu ñëw ba fii samp fi daayira sopp yonti yàlla Muhammad ne ñu nag bu leen am xaj bu leen am seen na ngeen woo julliti yàlla yëpp ngeen bokk ko ñoom. fu ngeen dégg ko woote ci lislaam na ngeen sol seen dàll dem fa lool nag la daayira bi nekkee ba tey moo tax ku xew la bëgg nga ñu teew kon nag ku ñu daan teewal bëgg nañ nga teew yal nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm yàlla bu am kenn am ngant salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ah fa tabaarakallaahu kon mbokk yi mi ngi noonu kàddu gaa ngi noonu kàddu gi nag dañ ko bëgg a yëkkati jox ko Fatmata Sërif nga xam ne tabaarakallaahu kenn mënu ko ci daayira bi kon soxna soxna Adja Fatmata Sërif. ñu ngi li jox kàddu gi Adja bisimilahi rahmani auju billahi mina seytaani bisimilahi rahmani rahim onon bandiraɓe haalpulareɓe onon fof noddama takkusade assuro takkusade seydina mouhammed kala haalpulaar noddaade takkusaan seydina mouhamed mi onon foti idaade heen cubalel naaɓe kala mbiyowo achadu an la ilaha illallah on noddaama e keewal takkusaan asusuro o kala leelɗo dañta place gaare hak takkusane hakkude 4 heures so neɗɗo leeli so ari dañtade juuɗe ono fof noddama dayira fout cheikh oumar touti taal ono fof noddama kala e takkusane he mi sikki enen haalpulreɓe so noddama e takkusane seydana mouhammed hay goto fotani idade hen hen ono foti idade hen kono noon mi salmini on mi bismimami on bisimilla won mbiyama bisimilla e takkusane seydana mouhammed كنت محمد الأمين صلوا يا على الكمال على النبي باي الجمال من عوى كل المآلي ينال قدره ماذا الحال

daam yoneen waju la qaal ilaal yaa muhammad yaa muhammad مع سلام النبي خير الأنام وألا وألا سعد بن كرام أما خير عام